salaamaaleykum euh, àdduna salaamaaleykum waa Sénégal euh, ndeysaan sàdd lan taxawaloon léegi muy ndaanaan bu mag waaye nag kin seet see ngi nii jàmbaar jaa ngi nii ki nangoo liggéey ngi nii góor gaa ngi nii macha allah nga xam ne yóbbu na yaay màkkate lebul paas am jom di sellal li muy jaay ñëpp taamu ko waa Touba Cheikh ñu ngi lay nuyu. Euh, salaamaaleykum maa ngi leen di fay Bas Bari Bagaas maa lay nuyu di nuyu waa 24 actu yëpp. maa leen di nuyu euh, di nuyu ñi nga xamante ne ñooy téléspectateur bi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy suivre si internet bi di nuyu ñëpp di nuyu population Touba yëpp di nuyu Sénégal yëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp ci weeru koor gi. waaw Cheikh El Hadj mu mel ne macha allah ñëw nañ fii seet si la tey euh, Touba jox lu bopp taamu la waaye ndax li lay laaj question bi couvre-feu bi maanaam yow yàq nag sa liggéey dara. wala yàqu sa liggéey dara ndax couvre-feu bi yow da nga daan wàcc vingt une heures da nga daan wàcc ay vingt heures dafa daan jaay ba heure boobu léegi ñu ni trois heures na marché bépp wàcc maanaam sam njaay est-ce que nam daan doxe ci côté boobu couvre bi laal na wala laalul la nu demee daal sa côté foofu yow. waaw euh, très bien sëñ Bass euh, euh, ma tontu question boobu couvre-feu bi am na loo xamante ni lu ñu naa état d'urgence am na loo xamante ni wàññi na ko si suñu koom si suñu koom-koom lu si mel ne. suñu chiffre affaire ku ne xam na ne wàññeeku na bu baax baax parce que ñun 7 heures lañ doon xëy wàcc 21 euh, heures jàpp 22 heures léegi nag 7 heures xëy wàcc euh, wàcc 3 heures kon déjà wàcc wàññi na ci lu bëree bëri mais teewul ñun tamit ci biir loolu dañoo sopp suñu programme euh, ni nga xamante ni ni ñu ko doxalee mooy dañoo suñu clients yi nga xamante ni mënuñoo jote ak ñun mënuñoo egg si suñu wala heure bi nga xamante heure bi ñu wàcc suñu waa heure bi ñu war a wàcc passé na jot na te ñu bëgg a soow bu boobaa dañuy woo ñu déplacé wu indil leen soow seen biir kër yi macha allah macha allah loolu loolu rafet na lool loolu mooy euh, livraison à domicile macha allah yow nag sam soow xale ya ko tàmm Touba tàmmul ko seen bopp ba fu waay mën a ne ci àdduna danaan la jënal ma ci Cheikh Sow macha allah nga set nag di ko sellal euh, ndax bi euh, coronavirus bi amee ba léegi yow yéen yaa ngi ciy def ay ndimbal social. comme ni ko sëñ Mountakha waxoon daal ni nan jaamu yàlla te ku ne kana tane nga dimbali ko léegi Cheikh Sow ñun bëggoon noo xam ci moom bi ko sëñ Mountakha waxee ba léegi moom en tant que mu nekk Touba yàgg fi loolu di jaay ndax mi ngi def social. waaw social moom macha allah yàgg nañ di ko def avant coronavirus fekk nañu ñuy def social parce que ku xam entreprise Cheikh Sow Neex Sow xam ne moom si social la juddu si lay dox loolu moom yàgg na avant lii di am moo tax ba lii amee rek ñu ci bari Euh, seen xel dafa dem si entreprise boo xamante bu si mel ne Cheikh Sow Neex Sow ñu ñëw nag euh, fekk si sëñ Mountakha li nga xamante ni moom la digal parce que moom mooy suñu royukaay ndegam moom mooy suñu royukaay nag li digle ñu den si euh, ànd ak moom mooy wàllum social bi nga xamante moom nga wax léegi parce que ñun dañ doon dañoo joxe ay ceeb ay diw ay eau de javel ay gel antiseptique ay yeneen ak yeneen ay yu bëree bëri ñoo ngi ko doon joxe macha bi ngay bi ngay def social boobu ndimbal wi maanaam da ngeen a jëloon ay oto ak ñan nga ci àndaloon macha allah fii ci Touba ak fa ngeen ko daan defee xam nga biir dëkk bi biir bi bi ñu séddale ceeb bi bi mu ñëwee danoo wax ñu njëkkee ci santaan yi ba pare ndax ñoom danoo sonn danoo gis ni santaan yi danoo sonn trop trop trop yow bi ngay bi ngay njëkkee social bi di ko def fan nga njëkkee ci biir ci biir dëkk bi nga njëkkee wala santaan yi non si biir dëkk bi la njëkkee nga xamante ni ñoom lañ gën a nemmeeku ñoom lañ nemmeeku woon ñi nga xamante ne soxla nañ ko xam ne ko soxla woon bu baax a baax moom lañ ko jox si biir dëkk bi mais nag am ñoo xamante ni dañ doon jóge sancaane di woote di ñëw di jël si ndimbal li euh, li nga xamante ni moom moo si mujj li liñ si mujj def mooy li ñu yóbbu woon RTS bu Touba Mbacké moom mooy li ñu joxoon Baye Jagal loolu sax daan doon di mën naa ne bëriwul mais loolu mooy li nga xamante ni moom lañ mujjee def ci social mais avant loolu lu loolu am na yoo xamante ni commencé woon nañ ko lu si mel ne ay suukar ak meew ñoo ko yellool ànd seeg euh, euh, ci liggéey bi ba pare tamit demoon nañu fu si mel ne maison daara bi nga xam ne moo nekk Mbàkke Euh, fi nga xamante ne fa lañ tey euh, prison yi prison yi yóbbu fa ndimbal yóbbu fa tamit ay gel yóbbu fa ay savon yóbbu fa ay eau de javel yóbbu fa ay bagages yu bari foofu ci prison bu Mbàkke bi noonu lañ ko defee tamit feneen ak feneen ak feneen. waaw ma gis ni Cheikh euh, est-ce que ndimbal boo koy def fii ci Touba ndax damaa gis biir dëkk bi sonn ñu de daal maanaam question boobu foog ma ñëwaat ci. damay damay damay gis que ni ñeneen yi bu ñuy def ndimbal da ngay dégg seen seen i kàddu ñu naan te ñoo dem te sancaan ya maanaam comme te ji ay umul xuraa ca kaw ci biir yaa ngi dégg ay saam ci biir biir biir foofu noonu côté yooyu di fa def ndimbal est-ce que ñooñu gënuñu sonn biir dëkk bi daal maanaam ville biir dëkk bi am na si boo déggee biir dëkk bi maanaam foofu sax si biir dëkk bi la bokk macha allah foofu noonu ay saam ay umul xuraa yëpp si biir dëkk bi la bokk mais am na ci biir dëkk bi ñoo xamante ni soxla nañ ko du ñëpp nag mais am na si biir dëkk bi ñoo xam ñu ngi si biir dëkk bi soxla nañ dimbal li moo tax ñu ne avant avant tout fi nga xamante ni ñi ñu gën a jege foofu lañ jëkkee Euh, ñi nga xamante ñu avant ñu dem fu sori fi nga xamante ni dañoo xool ñi nga xamante ne soxla nañ ko si samay wax boo déggee dama laa ko soxla moom lañ ko jox ñi ko soxla nag ñu ne xam nañ ko am nañu am soxla nañ ko waaw loolu loolu loolu dëgg la waaw waaye comme damay faral di wax ni sancaan yi nañ leen bàyyi xel ndax ñoom it sonn nañ lool ku fa dem da ko xam macha allah social boobu ngay def da nga koo dond ci sa baay dond ko ci sa yaay macha allah ku ne xam na ni Baye Omar saw moom ku ko xamul Touba macha allah dégg nga ko muy taalibu Serigne Fallou bu mag social nag danga ci yàgga dox man xam naa ci dara ndax eh, nit dañ ni du tàgg boppam waaye man man naa mën naa ci seede man doom bur géwél bi dëkk Touba man Bass Bari Bagaas social ak ndimbal danga cee yàgg macha allah moo tax bi suñu doon waxee ni nan jaamu yàlla ku ne ka nga tane nga dimbali ko seex saw jël ay ceeb jël ay diw yëpp jël ay sukkoor jox ko biir dëkk bi macha allah kon loolu wane ne yaa ngi liggéey ci dëkk bi waaye yaa ngi defar ci biir dëkk bi macha allah te yàlla lu ko yàlla fay waaye ñu xam que ni est-ce que place yi macha allah laaw la cat euh, place yi ci marché Ocass yi nga fi am yëpp benn bu ne par rapport est-ce ngi daan dox par exemple ni mu daan doxee par rapport bii nga xam ne moom la ñëpp gën a xam bu fi mu nekk nii yeneen yi est-ce que mi bii waaw euh, atum ren mi moom ku ne xam na ne comme si li ma la wax sànq chiffre dafay wàññeeku par rapport ak ni nga xamante ne nii noonu la doon doxee parce que ñun suñu soow euh, mun naa ne ñoom ñoo koy jënd dafa am ñu doon jóge Daaru Musti am ñu jóge Louga ah am ñu jógee Mbacke am ñu jógee feneen ak si sous raison yi di ñëw jënd si ñëpp amatuñu accès pour pour ñëw parce que yoon dañ koo tëj dèjà amoon nañ ay clients yoo xam si àll bi lañ daan jógee ci àll bi quoi li nga xam ne moo jege Touba ay ngaabu ah ay tiib ay euh, nu tuddu ay Colobane saalum foofu yëpp lañ daan ñëw ñooñu ñëpp si suñu client la bokkoon am na sax ñoo xamante ne anguro doon jënd ñu nekk Colobane Saloum wala ñu nekk euh, Touba Njeget fi leen daan jëndee soow anguro ñu defal leen ko ñu yóbbu ko ñoo ñëpp ñëw ko kon dèjà affaire bi am na am na benn affaire boo xamante ne joué na ci wàññi na bi baax a baax daal mais nag sant yàlla lépp daal wér ko gën en nañ ñaan yàlla ñu ñëpp ñu wér ñu delluwaat ci suñu liggéey waa Cheikh ma gis ni soow mi comme ni mu selle nii macha allah dafa wute yeneen soow yi man mi ciy naan xam naa ci dara ndax comme maanaam damay gis am Europe muy muy muy muy euh, jëfandiku ci soow ma di ko fa di ko fa wuti daal dem ba Europe di génn di saytu soow macha allah ni mu ciy sonne ak ni nga ci nangoo sonne di dem fu ne est-ce que jaral na ci ñi ci des comme ni ni ni nga koy taxaw ba sa soow set sell ngay génn di dem fu ne ci àdduna Hollande fi meew mi di jugee nag yi affaire yooyu daal la may gis nga fay dem macha allah loolu lu ko waral. waaw li ko waral mooy ay doomi aadama buñ sonnee ci yow. da ngay nangu sonn ci ñoom parce que boo xoolee sama ginnaaw macha allah soow yi bëri nañ mais dañuy déplacé wu yow rom ñëpp ñëw pour ñëw pour buuxante pour jël soow mi kon nit ñi bu ñu sonnee ci yow da ngay nangu sonn ci ñoom pour lan pour am qualité bu baax pour lan pour am quantité bu baax parce que dafa am ñaar ñoo xam ne ñoom ñoo ànd qualité ak quantité donc bu amee qualité bu baax da ngay fexe am quantité bu ko defee yow du am benn rupture chaque jour da ngay mën a am soow mën a am soow mu baax bu client ñëwee nga xamante ni dara du manqué loolu a ñu si sonn pour dab seen bànneex parce que ñun toogaluñ fi ñenn ñu client yi client lañ toogal bu nekkul woon ñoom mën nañu tëj suñu place dem ñibbi parce que barki Demba Ndiaye bañ ne dañuy tëj marché bi ñu ne leen ñun yéen jaakar lekk yi am nga ah, jox nañ leen autorisation ngeen ubbi ah teewul ñun dañoo mujj tëj tëj suñuy place parce que lu tax loolu client yi moo tax client yi moo ñu soxal ndegam client yi ñu fi nekkoon jër woon ñu moo taxoon ñu tëj place mais léegi mam euh, fi may waaj a jeexale mooy seex est-ce que mi ngi yar ay nag pour du ci wut soow nag yi comme yi jóge Hollande ak yooyu est-ce mi ngi ko indi fii Sénégal pour gën a comme li nga wax rek li la la taamoo moo tax nga leen di gën a bégal ndax nit euh, bu ko ay joxee bopp te Touba ni mu yaatoo bari lool ñuy jaay macha allah Touba gépp koo wax mu la seex saw loolu xam naa ni ñu ciy nangoo sonn la ak li ñu ciy def léegi ndax ñu xam ne seex ndax mi ngi yor ay nag wala yarul ay nag. waaw euh, bas bari bagage euh, bu ñu jógee dinañ la woon suñu nag ñu suñu nag mu ngi ngaabu am nañ fa benn ferme bu mag bu nekk ngaabu si devant yi foofu la ñu am ay nag euh, ki ñu ko jaayoon mu ngi tudd Ousseynou Wade ku ne xam na ko moom tamit ferme bu mag la yor sorewuñ moom tamit mu ngi foofu si ngaabu foofu la suñuy nag ak suñu lépp nekk maanaam macha allah xam naa dinañ ànd caméra yi ñu dem fa ñu filmer affaire yeeg yu demee noonu ñu daal koy won askan wi bañ ba mu gën a leer incha allah. waaw léegi Cheikh gis Cheikh. macha allah place yi yim am marché Ocass catuma ko bari na loolu macha allah ma gis ni ay mbokkam rek laa fi fekk muy place bu njëkk bii bi biñ ko xamee woon bay yi mujjee am heure boo fa demee da nga gis benn mbokkam bu fa nekk te léegi li xew am dimbalee bëreetut wala ko am da ngay fàtte say mbokk yow defoo ko de nga fier ci li nga doon indi fi say mbokk ñu jaay nga leen di dimbali loolu yàlla dala ciy fay ndax xam naa ni moom damay fan di wax ni juróom mel ni yow buñ amoon sa famille ak askan fa nga dëkk fa nga bàyyi duñ sonn duñ jaaxle benn yoon ma gis ni Cheikh macha allah place yi mu am yëpp teg na fa ay mbokkam ñuy jaay maanaam googu yërmande ak léegi ndimbal ni mu jafee nga am ko ci say mbokk macha allah koo bokkal rek dimbali nga ko man xam naa ci dara koo bokkal léegi question boobu laa lay laaj. waa xam nga wolof Njaay euh, dafa ne maanaam comme par exemple euh, nit ki nga may ko jën nga jàngal ko ni muy nappee daf koy gën. nit ki nga may ko jën nga jàngal ko ni muy nappee pour mu am jën mooy gën tey Cheikh Sow bu nekkoon benn Cheikh Sow rek nekk si place bi di liggéey yaa ngi dégg par exemple tey Moussa Sow soxla dara ñëw ne Cheikh li laa soxla nga yëkkati jox ko xam nga mënul mënul chaque jour chaque jour chaque du ñëw di laaj léegi nag moom bu amee fu mu jàpp di liggéey doo xam doo dootu la ko laaj dèjà boo boobaa day liggéey def si boppam keneen noonu keneen noonu keneen noonu keneen noonu mm-hmm. looloo waral affaire bi dem noonu ba mujj nekk benn entreprise boo am entreprise mag la mais boo xoolee tamit boo xoolee si biir entreprise bi du suñuy mbokk kese sax ñoo si nekk am na ay même joolaa sax moo ngi ci parce que vigiles yi kenn ki joolaa la kenn ki séeréer la wolof maa ngi fi gis maa ngi fi gis olof moo ngi fi euh, puy mais vigile benn boo demee moom séeréer la kon ñu dañoo dañoo sélectionné haalpulaar moo ngi fi moo ngi fi joolaa moo ngi fi ñun ñëpp moo ngi fi mais comme ni ma la wax sànq rek wolof njaay dafa nit ki may ko jën jàngal ko ni muy nappe moom moo gën bu ko defee beneen yoon du la sonal ci dara kon daal seex moom maanaam mi ngi dimbali ay famem mi ngi jàppale ay famem la ngay dàqee kéwal mu jëm biti dàq ko mu jëm biir moo gën kon Cheikh euh, sant nan la gërëm nan la macha allah di di la ñaanal jàmm ak gudd fan ci barke Cheikh Mouhamadul Fadil sa yaakaar ji Serigne Fallou Fallou bu so baa mi ci kadd gi bas mbéru Serigne Fallou def di dindi kuréel mu gindi ki nga àndal ku ànd ak moom bul tiit bul ragal dama la ko yàgg a wax soo si dunu benn ca nokkas balaa waaye soo yi dunu benn ca defar bala loolu la yàlla dogal soo si dunu benn ca nokkas bala waaye soo yi dunu ca defar bala ak set ga ak sell te yaa ngi koy sellal Touba jox nañ la bopp na leer yaa fi ne barke sëñ Tuubaa du ma ne kenn yàlla nunu te gisuma yàlla man nag moom li baax lépp su ma la koy waxal dama lay catu kon yàlla na sa jàmm yàgg wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou mu yàgg fi suñu xalifa ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ak Cheikh Jëmbu Fall xalifa Baye Fall bi